ok alhamdulilah rabil aalamiin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal santaat suñu boroom subhanahu wa taala ci lim ñu wërsëgal ñu daje ci néegam di fas yéene jël li nga xam ne mooy njàngalem am yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di sukkandikoo ci téere bi nga xam ni moom la ñuy tuddee bulughul maram ba alxaafis ibnu xajar rahimahullah ñu yegsi woon ci li ñuy tuddee kitaabu nikah mooy bunt bi jàngale wàllu sëy ñu yegsi ci fukkeelu bunt bi muy baabu li aan te mooy buntub rëbbante bi tey jii mooy ñaar fukki fan ak benn ci weeru rajab ci 1439 di dëppoo it la nga xam ne mooy juróom-ñetti fan ci weeru avril kon incha allah comme ni nga xam ne nii noonu lañ ko doon jële ñu jëkk a jël njàngin mi ngiree it ëllëgi ki si biir pour ñi nga xam ne dañ koy bëgg di ko topp mbokk lii mooy fukkeelu buntu bi jàngale lu aju ci wàllu sëy muy wane ni doomu aadama yi jàpp nañ ne diine lislaam moom mooy rekk julli koor aj màkk yi laaxiri waaye nañu xam ne loolu ponk yàlla waaye diine lislaam aw dundin la looloo tax ba lépp lu ca aju ci ay jafe-jafe won nañu nu ñuy def ba luñ ko am buñ ko amee it nu ñuy def ba génn ci xadis bi ñuy nar a jàng tey gis nañu ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala dafa wàccee ca suratu nuur ay aaya waaye lu jiitu loolu suñu boroom subhanahu wa taala moo wàcce ca suratu nisa ne képp koo xam ni dafa dañ koo gis ci njaaloo mu ne fastashhidu arbaatan minkum indi leen ñeenti seede ci yéen looli noonu ab atte suñu boroom ni bu ñu indul seede yi ñoom ñooy ña nga xam ne nii ñooy toñkat yi ba nga xam ne nii ci lislaam su doonte ne ni ñetti nit dañoo ubbi woon am néeg gis nit ñu futteeku di njaaloo seeni bët tegee ci ni buum di duggee ci teen ñoom ñett ñépp suñu demee ca attekat ba wax ko islam da leen di wax indi leen ku leen ñeenteel suñ ko indiwul ñoom ñépp la ñuy duma ñu ngi noonu doonte ne wax nañu dëgg waaye nag ca yàlla dëgg googu valabulu fa ndax bala nga am dëgg ci njaaloo da nga am ñeent loolu gis nañu ni bokk na lu ñuy nettali ku mel ne Saad ibnu Obada moom mas na dégg yonent bi tari loolu mu ne ah ma ñëw fekk góor sama kaw soxna ñoom yàlla yu ni jël si rek laa koy wàccee mbokk yi daal di tiit daal di na ko yow mi yàlla yónni bu ko topp kii dafa fiir fiiraangeem tax na ba musul takk lu dul jànq te kum fase kenn ni ñëmewu koo takk ci ñun yonent bi nag ne leen li muy fiir fiir day maa ko gën a fiir te li may fiir fiir yàlla ma gën a fiir amma xadis bi ñuy jàng suñ ko jàngee mu ne an ibnu umar radiyallahu taala anhuma qaal mu ne saala fulaan laaj na diw fa qaala ya rasul allah araayta an law wajada axaduna imraatahu ala faxisha mayu mi yàlla yónni bu doon kenn si ñun daa ñooy fekk soxnaam ci aw ñaawteef faaxisha buñ ko boyelee rek xelee lam cay yóbbu mooy njaaloo kayfa yasna su boobaa lu muy def in takallama takallama bi amrin azim su waxee day wax na wax ju rëy wa in sakata sakata ala misli dalik ba ko noppiwaale it noppiwaale na ci lu mel noonu falam yujibhu yonente bi alayhi salaam tontuwu ko falamma kaana ba'da zalika ataahu ban toogee ba gannaaw loolu mu dikkalaat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala inna lazi sa'altuka anhu mu ne ko ay yumi yàlla yóni la ma la laajoon day qad ubtuliitu bihi yàlla nattoo na ma ko fa anzala allahu al ayat fi surati nuur ca la yàlla wàcce aaya ya nekk ci suratu nuur fa talaahunna alayhi wa waaza yonent bi tari ko ci kawam daal di koy xupp waar ko wa zakarahu fàttali ko wa axbarahu mu daal di koy xabaare ann azab addunia ahwanu min azab al axira ci ne mbëggalum àdduna day moo gën a woyef moo gën a lompañ gën a doyedi ci mbëggalum alaxira qaala laa mu ne ko déedéet wallazi baasaka bilxaq maa ngi waat ci ki la yónni ci dëgg maa kazabtu alayha fenuma ci moom li ma wax dëgg la suma da'aaha yonent bi woolu soxna sa fa waazaha kazalik mu daal di koy xupp naka noonu fa qaala laa mu ne ko déedéet wallazi baasaka bilxaq maa ngi lay waatal ci ki la yónni ci dëgg inna innahu la kaazib ay yow mi yàlla yónni moom mii day day fen fa bada abi rajul mu jëkk ca ko góor ka fa shahida arbaa shahaadatin billah mu seede ñeenti seede ci yàlla summa sanna bil mar'a gannaaw ba mu ñaaree la soxna sa summa farraqa baynahuma gannaaw ba mu teqale seen diggante rawahu muslim mi ngi noonu noonu la ko muslim solo kon ba ko gis nañu ne kii di ibnu omar mooy nettali xadis bi mu ne dafa am waaju ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo delloo ci yeneen riwaaya mi ngi tuddoon hilaal ibnu umayya hilaal boobu bi nga xamee ne nii dégg na suñu boroom atte ne nit ki bala ñu ko jiñ ak njaaloo nañ indi ñeenti seede mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko waaw yow mi yàlla yónni su dee ne nag nit ki soxnaam la fekk muy njaaloo moom naka lay def ndax su ko waxee fekk moom rekk ko gis dana wax lu rëy dañ ko duma ci kanamu mbooloo mi ca it loolu nga teg ci sa bët ba pare noppiwaale ko loolu it yow mi yàlla yoon loolu rëy la bi mu waxee loolu yenent bi tontuwu ko falam yu jibuhu ci lii la borom xam-xam yi di waxee ne doomu aadama bi war nay moytu di laaj lu xewul moo tax yenent bi tontuwu ko ndax loolu muy laaj musul xew ci société bi du tax muy dem di ko laaj mi ngi noonu loolu muy benn dana ci amit lu bari ci nit yi tey boo gisee ni ñuy laaj gën a sonn nit ñi laajuñu pour jëfe dañuy laaj rek ngir wax ak it bëgg a laaj ak yi laaj laaj yoo xam ne da ngay gis ne mënul nekk temps yële am na laaj bu ñu doon tasaare di ko tasaare benn waaye ngi Italie la nekk ñu may ko fi soxna musul gisanteeg soxna bi bon léegi mu jóge Italie ñëw dem ci benn baar daje fa ak soxna sa njaaloo fa ak moom te soxnaam sa waaw loolu ndax bàkkaaru njaaroo lay am nam nangam lay am mbokk jurit loolu nan la mën a nekk ah pourtant ñu ngi koy laajte fatawa yu bëri ala kulli xaal mbokk julit heure bu jógee bay laaj day laaj lu ko lënt ci diineem lu mu fas yéenee jëfe wala lu mu jàppoon ne mi ngi koy jëfe muy laaj ndax dagan naam daganul waaye ndax ganaar ak xar bu ñuy xeex dagan na ndax kii def ay laaj yu ne la ñuy laaj doo xam ne amul bopp amul genn almuhim kon laaj na laaj bi yonent bi alayhi salaam tuntuwu ko ca it booba it yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamul ci lu mu koy tontu ca suñu borom yàlla moo ko digoon ne liñ la laaj boo ko xamul moom dinaa la ko xamal waaye nag yàlla waxagu ko moo tax it tontuwu ko ca it loolu ñi ñaanal ko imam sa rek képp koy tontu mooy lépp luñ la laaj bu dee ne xamoo lañ la laaj nga dee xam xawma ko bañ caa wax loo xam ne nii xamuloo ko kon loolu la def waa ji bokk na luñ ciy waxe loo xam ne wolof yaa ngi koy wax balaa ngi ci la miñ am na sax xadis bu ca root doonte ne borom xam-xam dañ ne xadis daif la al balaa muwakkalun bil mantiq mooy balaa ngi ci lammiñ bari na looy wax rek ba mutul yàlla nattoo la ko gis ngeen waa ji ñu teg ci ay jamono rek hilaal boobu ñëw këram fekk fa soxnaam ak kenn ci sahaaba yi ñu tudde ko sharik ibnu samha mu daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko ah yow mi yàlla yónni musiba de am na la nga xam ne moom laa la doon laaj yàlla nattoo na ma ko yàlla nattoo na ma ko loolee da ngay gis ne soo demoon ci yeneen riwaaya yonent bi alayhi salaam dane ko da nga indi yeneen ñetti nit yu ko seede wala ñu duma la dumay xasf ci xam ngeen ne ku jiiñ nit njaaloo ca matu leen ñeent dañu leen di duma ku ne juróom ñetti fukki yara am na sax lu ñu ci nettali ne jamono Umar ibn al-Khattab am na ñetti nit ñu mës a ñëw ne ñoo fekk diw ak diw di njaaloo Omar ne ku leen ñeenteel am ñu ko leen ñeenteel Omar ne duma leen ñu jàpp leen duma leen ba pare benn caamin bu ci bokkoon ne duma ngeen ma de waaye maa ko gis muy njaaloo Omar ne jàppaat leen ko ñu jàppaat ko ñu duma leen ko yaa ngi dégg yaa ngi dégg doonte ne ñu ne Ali ibn Abi Talib dana ah kii kat comme du ma woon na ko kon war naa mat ñeenteel waaye Omar na ko déedéet il faut mu am ñeent almuhim kon waa ji yonent bi wax ko loolu waa ji na ko ah dëgg-dëgg day man maa ko gis de yow mi yàlla yónni foofu la yàlla wàcce suratu nuur mooy liñ doon jàng léegi ci timis yal na yàlla nangu ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag daa di ne su dee ne góor moom moo gis soxnaam ci njaaloo ñeenti seede yam waroon a indi na ko remplacer ñeenti waat su ko defee day taxaw ci kanamu àttekat bi daa dina maa ngi waat ci yàlla ne maa ko gis muy njaaloo maa ngi waat ci yàlla ne maa ko gis muy njaaloo juróomeel ba mu ne su dee lii ma waat ay fen la yàlla rëbbum yàlla wàcc sama kaw gaa yi lii yaakaar naa julit bu koy wax dana ko wax ci lu ko wóor gis ngeen ah loolu itamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di ko kon ne wool leen ma soxna si soxna si ñëw toog mu ne ah soxna si kii day nee na da laa gis ngay njaaloo mu ne waxul dëgg yonent bi ne waa baax na daa dina waa ji léegi kon waatal muy hilaal ibnu umayya hilaal daal di waat wallahi lazi la ilaha illa huwa maa ko gis wax ko bi ma ko waxee ñeenti yoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam tëj gémmiñ ci ko ah hilaal xoolal li ngay wax bu baax mbugalum àdduna day lu mu metti metti moo gën a woyof mbugalum àllaaxira gis ngeen moo gën a woyof mbugalum àllaaxira yeneen hilal na ko maa ngi waat ci yàlla mi la yónni ci dëgg li may wax duy fen daal di yéggale waat gi daal di ne yàlla day bu dee damay fen yàlla na rëbbum yàlla wàcc ci man ah yeneen bi ne waaw kon soxni kon soxna si yaa ci des bisimilah soxna si daal di waat ñeenti waat ne day fen juróomeel bi yonent bi alayhi salaam tëj géem mi gën a ko attention soxna si mbugal mi ñuy mbugal fii ci àdduna day moo gën a woyof li lay xar àllaaxira bu jë da ngay fen mu daal di ne ko maa ngi waat ci yàlla ne day fen daal di waat juróomeel ba ni su dee ne waa ji wax ne dëgg yàlla merum yàlla wàcc sama kaw naam xëy na mën nga laaj waaw moom bu nangu woon ne dama doon njaaloo lu ciy xew luñ koy def lañ koy rey naam kon nga ne ah loolu dafa jéggi dayo nan la nit di d'accord loolu ah yàggu leen dégg ci sunna ku ñëw seedeel boppam dañoo njaaloo bañ rey ko ah kay am na ko góor ñu koy wax maïs am na ko jigéen ñu bu ñu teel alxamidiya ñoom ñaar ñëpp kenn seedewu leen kenn fekkewu leen ñoom la yàlla nattoo ak njaaloo ñu ñëw ci yeneen ci yàlla bi ne ko kat dama doon njaaloo laabal ma ñu ngi noonu ba ko Maalik defee teg ci ay temps alxaami day def ko moom sax dafa ëmb ñëw mu ne yow mi yàlla yónni gis nga la xew de sama ëmb bii day jaarul ci yoon dama doon jaaroo yeneen fi ne ko demal ba wasin mu dem ba wasin ila axiri ba jot ko nàmpal gannaaw ba ñu rey leen doonte ni ni suñu njort incha allah ñoom ñaar ñëpp ñu ngi aljanna ñoom ñëpp dañu dem aljanna loolu moo taxoon yonent bi alayhi salaam ne lii yàlla nattoo na la ko ba pare nga muñoon de ñu teg loob yàlla ci kaw sa kaw moo gën a woyof la lay xaar àllaaxira mu ne ko dal yu mu yàlla yónni day fen gis ngeen day fen ah yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee ne wax na nañ lii ca la nag teqale la nga xam ne nii moom mooy seen diggante mi ngi noonu ne leen kon dem leen seen diggante moom doon na lu teqali ko ba faw doonte ne teqale boobu ku mel ne Abdallah ibn Mas'ud daana wax ne romb na ci sunna day ñaar ñu rëbbante duñu dajewaat ci sëy abadan ñaar ñu rëbbante duñu dajewaat ci sëy abadan daanaka xaw nga mën a wax ni kaa boobu rek la ñuy gis ñaar ñu dagan a sëy problème am seen diggante ñu teqale leen dootuñu àndaat bi faw mi ngi noonu wallahu aalam ci lu aju ci xadis boobu amma bu dee xadis bi ci tege xadis bi ci tege wa anhu radiyallahu anhu ibnu Umar moo koy nettali ba tey anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lil mutalaa'inayni yonent bi day waxoon na ñaar ñi doon rëbbante léegi nag xisaabukuma ala allah ka leen di régler ëllëg mooy yàlla ahaduhum ahadukuma kaazib kenn ci yéen ñaar day fen laa sabiila laka mu mu wax nag ku góor ko ne ko laa sabila laka alayha amatoo ci moom benn yoon maadaama rëbbante ngeen qaala ya rasulallah maali mu ne ko ah yi mu yàlla yónne sama alal ji ma ko joxoon nag fa qaala in kunta sadaqta alayha mu ne ko bu dee li nga wax dëgg la ci moom fa huwa bi mastahlalta min farjiha loolee alal ja dana ko yeyoo ca la nga daganal ci payam mi ngi noonu sëy ba nga doon sëy ak moom wa in kunta kazabta alayha kazabta alayha bu dee ne nag da ngaa fen ci moom fa zaaka abadu laka minha loolu day moo gën a sori ci yow ci ngay jërat alal joojee mbokk yonent bi alayhi salaam ñii rëbbante nañu mu ne leen ah léegi yàlla yor seen réglé xisaabukum ala allah gaa yi ndax yonent bi xam na ku cay fen laa xamu ko ndax yonent yàlla bi xamaloon xëybu am déet mi ngi noonu soxnaam ci boppam jiñ nañ ko njaaloo suñu yaay Aïcha radiyallahu anha lu jege weer yonent bi alayhi salaam nekk ci ak lënt bay woo Ali ibn Abi Talib woo al Barira ku nekk mu lay laaj ndax mas ngeen am sikk sàkk ci Aïcha ila axiri ba histoire bu gudd ni yàgg ngeen ko dégg ba mu demee ba Aïcha dem kër papaam mu fekk ko fa te ko nag Aïcha jooy guddi jooy bëccëg yi jaru ko su dee ne ah da nga def njuumte waxal nga tuub yàlla subhanahu wa taala dana la baal soo deful njuumte nga xam ne defoo ko ca la yàlla wàcce jibril alayhi salaam indi aaya yi ñuy jàng ci suratu nur bi ila yawmi din seetal suñu yaay Aïcha wet mi ngi noonu moo tax ba mu ko taree ba pare yonent bi jóg na ko abshir yàlla de moom laabal na la mi ngi noonu yaay ji na ko Aïcha jógal tuubal yonent bi alayhi salaam mu ne ko mukk man koy su may sant yàlla lay sant yaa ngi dégg waaye ala kulli xaal li ñuy wax rek mooy yonent bi alayhi salaam xamul woon xëy bu xamul woon xëy bu mi ngi noonu lu dul la ko yàlla subhanahu wa taala doon ko ko xamal ci keneen ku dul moom it xamul woon xëy bu ci keneen du ko xam gannaaw booba ila yawmi diin lii mbokk ngalawaay na doon pas-pas boo xam ne di ngeen koy gëm léegi nag waa ji na ko waaw yu mu yàlla yónni ah bu ma naree teqali ko ak moom nii alal ji ma ko joxoon moom nu muy demee yonent bi alayhi salaam na ko déedéet comme jotoon ngeen sëy ba pare alal joojee moom mënul tëloo koo jëlaat mi ngi noonu ci xam ngeen ni ji góor dana mën a jëlaat alalam ci benn charte mooy moom lam warloog ndaw sa ci sëy bi def na ko ndaw si moom moo mënul muñ loolu ne day génn ci sëy bi loolu mooy bunt bi ñu paase muy alxulu foofu rek la soxna ah di mën a delloo borom kër can mu jël ko loolu kon mbokk lañ jote jàng ci bunt bi nga xam ne moom la ñuy tuddee buntu rëbbante ci lislaam
وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارسلوها فان جاءت به ابيض سبطا فهو لزوجها وان جاءت به اكحل جعدا فهو للذي رماها به متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يضع يده عند الخامسه على فيه وقال انها موجبه رواه ابو داود والنسائي ورجاله ثقات وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصه المتلاعنين قال فلما فرغ من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن
kon na mbokk xadis bi ci tege mooy wa an anas radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal absiruha xool leen soxna si fa in jaat bihi abyada sabitan su indee doom boo xam ne dafa weex doon doom ji mat sëkk fa huwa li zawjiha dana ñeel kon borom këram wa in jaat bihi akhala jaada su dee da koo indi bët yi doon bët yu ñuul ba mel ni lu ñu tusngal mu doon gone goo xam ne nii gone gu gàtt la fa huwa lillazi ramaha bihi kon day dana ñeel ka nga xam ne moom la ko sànni jiñ ko njaaloo googe muttafaqun alayhi mi ngi noonu bokk bokk na ci suñu borom ngir wone ay kawteef bi nga xam ne nii Hilaal bàyyi na soxna si yàggul dara soxna si dafa feeñal ab ëmb léegi nag mu nekk ishkaal ci ne ndax day nekk doomu Hilaal ëmb boobe am déet biñ ko waxee yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi na xool leen ko bis bu wasinee ñu gis ne kat doom ja day ba mu juddoo nekk na doom bu mat bu weex su boobaa dañuy xam ne doomu jëkkër ji la amma bu dee ne dafa doon ko gàtt ci ba di ñuul nañu xam ni sharik miñ ko jiiñ kooku la donte ne ni mbokku sharia xam nañu ne léeg-léeg dana indi ay tegtal ci bu preuve bu leer amul daan tegtaloo ci lenn ci ay qiyaas mi ngi noonu comme tey jii ko mel ne Souleymane alayhi salaam gis nañu bi benn ñaari soxna ñëwee ci papaam ñu nekk ca tool ya di bay ñi ki nga xam ne nii ñoom ñaar ñoom ñu teg seeni doom tilli gi ñëw jël doomu aaw bi yóbbu aaw bi ñëw rek jël doomi ñaareel bi ne ko sa doom lu yóbbu mu ne ko sama doom la mu ne ko sa doom lu yóbbu ñu ne nañ dem ci yonent yàlla daawuda yonent yàlla daawuda xool ne ah comme kii mi ngi ak doom ci ah doomam soxna si muñal rek ñaareel bi génn di jooy jooy yi métti Souleymane ne ko lan la mu ne ko sa papa day lañ ñëwoon atte woo nettali ko histoire bi nu mu demee mu ne kaay leen ñu delluwaat ci papa ji mu ne ko papa man de su ma doon yow du ma attee nii papa ji ne ko looy attee mu ne ko man xam lu ñuy def nañ jël paaka ñu dagg xale bi ci digg bi ku nañu jox la génn wàll nga dem bi loolu amee aaw bi moom na pat daa di ne mu ne ko d'accord nga mu ne waaw ñaareel bi ne déedéet déedéet ay nañ ko bàyyeeg moom bañ ko bàyyeeg moom Souleymane na bàyyi kii day fen jurul doom ji de aaw bi jurul doom ji de kii nangu ñu xot ñu dagg ko jurul doom yi dégg nga daal di jël doom ji delloo ko ñaareel bi loolee kon yenn ci ay qiyaas la am na ci avant tey jii am nañ ay nattuwaay lu mel ne ay ADN mën nañ xam kii ku ko jëre ku ko jurul mi ngi noonu donte ne am nañu naan tudde qiyaasa ca jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo xam ne yàlla da leen a mayoon xam-xamu doomu aadama liir buy doog a judd bu ñu ko yëkkatee rek ne kii diwéy bàyyam gis ngeen Usaama bin Zayd gis nga Zayd dafa xees yaayam doon koo xam ne ni ku xees la Usaama judd ñuul naafiq yi lu dañoo wax ko ci benn bis la nekk ca Madina ci tàngooy wi ñu nekk ci pénc ma benn kaw kaw ci ñooñu nga xam ne dañoo xam doomu aadama ñëw fekk ñu ngi muur seen bopp mu xool tànk Usaama xool tànk Zayd daal di ne tànk yi de ca tànk yi la génne dañ ko nettalee yonent bi alayhi salaam yonent bi kontaan ci loolu ndax la naafiqee doon wax ala kulli xaal yonent bi joxe tegtal yooyu léegi nag loolu yonent bi ne bu dee ne moom ci boppam day dafa doon ku gàtt ca ñuul kon ñu xam ne kiñ ko jiñ mooy baayam kooku mooy baayam kaw ni yan mooy ci wàllu dogalu yàlla bi muy dogal ci kaw ni bi amma ci sharia ndax muy bàyyam laa du bàyyam ci sharia donte ne borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne doomu aadama bi dem njaaloog jabari jàmbur kooke moom du jege du kenn du ko wax wàllu bàyyi ci dara amma su dee ne nag moom amul borom kër loolee itamit boroom xam-xam yi dëppoo nañ la ëpp ci ñoom ci ne it duñ ko considéré muy baayam lu dul ay yenn yenn lu mel ni ay abu xanifa te ku xam ngëru abu xanifa xam ne moom moo jiitu woon ñoom malik sori woon madina lu bari ci ngërëm ci xiyaas la ko teg tegu ko ci ay xadiis mi ngi noonu bokkul ak malik mi nga xam ne moo jàngal shafii shafii jàngal ahmad te ñu nekkoon ci place yi alquran ci ak sunna doon wàcce lenn ca ay ngërëm ak lenn ci yenn borom xam-xam yi ñoom dañu naan su dee ne moom amul firaash ndax yonente bi sam dane al waladu lil firaash doom ji borom lal bee ko moom ci mooy jëkkër ji walil ahiril xajar njaaloo ko ay xeer ko ñeer ñu ne maadaama di firaash ab jànq la bu amul borom kër baayam boobu nga xam ne mooy bàyyiw ci wàllu kawnu dogalu yàlla mën na nekk baayam ci sharia allahuma loolu bu doon xadis bu bëri moo coroot da ngay gis ne loolu wax la yu ñu man di nangu mais boo gisee li ñu tëdd mooy jumhurul ulama la nga xamee ni nii solo nañ ko di xadis yoo xam ne nii ku ñuy wax Omar ibn Shuayb moo ko solo ne yonent bi alei salatu wasalaam nee na képp koo xam ne dafa njaaloo ak gor wala jaam bu mën a doon doom ja doomi njaaloo la du ko donn ca doom ja du ko donn foofee yonent bi waxu fa firaash waxu fa ko am jëkkër waxu fa ko am ila axir loolee moo tax jumhurul ulama ñoom nanguwuñu loolu dañoo doon loo xam ne nii ñuy dàq loolu la ñu dootee nag ñu ne mooy baayam ndax mooy baayam ci kawnu mooy doomu aadama ki juddu ci amul bàyyi kenn la muy Isa ibn Maryam dañ naan bàyyeem la looloo taxit am na acte yu bëri yoo xam ne dañ ko dañ ko cay tere du ñu nangu mu séy ak moom duñ nangu doomam bi nga xam ne mook xale bu jigéen bi ñoo bokkoo fu ñu jóge ñu nekk di sëy loolu lépp luñ ko nangu waaye nag bu dee ne ci ay sharia ci wàllu féetewoog wàllu ay joxe alal ak wàllu yooyu yooyee moom dañ naan kenn du ko ko féetale ci wàllu sharia mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam amma bu dee xadis bi ci tegee di xadisu anas ibnu malik xadis ibnu abbas boog radiallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يدع يده عند الخامسة يونتي بلي دفني بن غور نتك لخوم تي گيمي ndaw si ci juremel ba wa qal innaha mujiba munako a xamal na soxna si lii day luy dal sa kaw la naam ci ku mel noonu fokk yàlla dana ko toroxal ci àdduna yàlla dana ko toroxal ci ci àllaaxira loolu mi ngi noonu soo gisee ci am na yeneen riwaaya yoo xam ni dañu naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu waxee loolu te mooy nañu xool xale bi xale bi bi mu juddoo kenn xàmmewu ko ak sharik biñ ko duuraloon kenn xàmmewu ko ak moom te loolu it bari na lool mooy ñii am doomi njaaloo di ko bañ xale bi ñëw këppi conforme ci yow am déet na nuróog yow à cent pour cent am na mbir bu mas a yéeme ci ñoo xam ne mas nañ dëkk ak ñoom jëkkër ji dafa tukki tukki bu yàgg moo am koo xam ne dañ koy tuumal ak soxna si jëkkër ji ñëwee fekk moom ëmb naa yu demee noonu ala kulli xaal li nit ñi wax am na kuñ koy tuumaal xale bi juddu dem ba xaw a dëgër benn waay jóge fële moom xamul lu xew benn soxna xamul lu xew ñëw ci kër waa ji daal di ne waaw doomu doomu diw ji moom lu muy def fii te moom yëgul sax histoire bi mag ña fa nekkoon ñëpp sëgg seeni loos mi ngi noonu loolee kon léeg-léeg yàlla def ko ca loolu mooy loo xam ne ni ay kaa la yu suñu borom di toroxale yenn jigéen yi wor seeni borom kër loolu moom lañ jàng ci xadis boobu bu dee ñetteelu xadis bi ci liñ jot a jàng وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة مطلائنين نتلنا مومت قصة ندون ربنت قال فلما فرغ بنجمي بفرج ربنتما من تلاؤنهما تسد ربنتما قال هلال دادين كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها mu ne ay yéemu yàlla yéen su ma ko continuer téye sama soxna day wane na kon man dama fen ci li ma wax fa tallaqaha salaasan qabla an ya'muruhu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muttafaqun alayhi mu wëlbati ko daa di fasi soxna si ñetti yoon avant que yonent bi di sant loolu soo gisee lenn ci fuqaha yi ñi naan ki fase soxnaam ñetti fase fase boobee araamal na seen diggante lu dul gannaaw ba mu siyaate keneen bokk na ci xadis yi la ñuy sukkandiku donte ne ne borom xam-xam yay wax ne fase ñett ci benn place du tey benn lay doon ñu ne li tax yonent bi saxal ko mooy même bu ko fasewul woon yàlla araamal na seen diggante lool la ñaar ñu rëbbante même bu fase amul yàlla araamal na seen diggante moo tax yàlla waxu ko ci loolu dara mu des beneen laaj bi ñu mën a laaj waaw hilaal mu ni mu sharik mi mu tudd ne kii daf doon njaaloog sama soxna lu tax dumawuñ ko maadaam indul ñeenti seede ci loolu bokk na ci ixtilaaf ci borom xam-xam yi am ñenn ñi dañ ni duma ci xasf mooy jiiñ nit ki njaaloo bala ñu ko def day fekk ne kiñ ko jiiñ moo ko sàkku si mais kiñ koy jiñ bu ko sàkk suul ci àttekat bi waa ji kenn du ko duma am maa nag bu dee moo ñëw taxaw ne kii dafa ma jiñ jaaloo ci ne indi ay preuve am indiwu ko lañ koy duma donte ne ni am na ñoo xam ne dañ ñee duma gi kay aqul islam la képp ku ñëw ci àttekat ne diw gis naa ko muy njaaloo ci indi woon ñeenti seede dañ laa war a duma ñu ne waaw kii lu tax yonent bi duma woo ko ñu ne li mu teg boppam moo gën a garaaw duma ki taxaw ci kanamu mbooloo mi ne man bu dee damay fen daa dina yàlla rëbbum yàlla wàcc ci man gaa yi rëbbum yàlla di moo gën a garaaw ay duma kon ñaar rek a mën a am day fen kenn waru koo duma waxul dëgg rëbbum yàlla moo gën a métti ay duma loolu moo tax kon ñu ne ki jiiñ soxnaam njaaloo même bu ca tuddee beneen góor kenn du ko duma ci loolu amma nag ki jiiñ keneen moom loolee moom booy indil ñeenti seede moom fokk dañ lay duma la nga xam ne mooy yari yoon wallahu subhanahu wa taala aalam
عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لابس قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها قال لا أصبر عنها قال فأمسكها وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان
kon mbokk xadis yi nga xam ne moo ci tege wa an ibnu abbas أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ابن عباس نينا بن وايدا نيوتي يونتي بنكو أيوم يلي يوني إن امرأتي لا ترد يد لامس sama soxna day du delloo benn loxo bu koy laal fa xaala xaribha yeneen ci bi ne ko tuxal ko yóbbu ko feneen fu mu wéete fu ñu ko xamewul qaala axaafu an tatba'aha nafsi mu ne damaa ragal sama bakkan di ko topp qaala fastamti biha mu ne ko kon bànneexul ci moom rawahu abu daawud wa tirmidi wa bazzar wa rijaaluhu siqaat wa axrajahu nasaai min wajhin axar nisaai solo na ko ci beneen wàll an ibn abbas radiallahu anhuma moom bi lafz qaal talliqha daf na ko fase ko qaala la asbiru anha mu ne ko ah yow mu yàlla ni mënuma koo muñ de xaala fa am sikha mu ne ko kon téye ko ñu ngi noonu mbokk kon kii dogal na ko ci buntu rëbbante ngir tuuma gum teg soxnaam moom dafa ñëw ne yonent yàlla bi sama soxna day du delloo loxo benn góor boo xam ne da koy laal am na ci yenn borom xam-xam yu exagéré ba ni du delloo ko koy sàkkum njaaloo waaye la shakk ne bu doon loolu yonent bi alayhi salaam du ko wax na ko téye ndax loole suñu borom da ko da ko aramal ca it loolu la ñuy tudde dayuus yonent bi alayhi salaam nee ne kii seetaan ak njabootam ci njaaloo du dugg aljana dayuus kii dul fiir du dugg aljana am na ñu koy firee naan lu ko laaj lu ko nit laaj mu jox la ko waaye li ci gën a digg doomu mooy bu dajee góorug caaxaan gu ñëw lëngu ko du ko dàq gu ñëw jox ko loxo nuyu du ko dàq mooy daal ni ngeen gisee rek ñoom jigéen ñi nekk ci mbedd mbedd mi tey ñu ngi noonu loole bi ñu wax ko yonent bi alei salaam yonent ne ah ku mel noonu day fase ko fase ko lu tax mooy loolu mën na ko yóbbu ci njaaloo am déet nga xam ne nii góor gu ko jox loxo mu jox ko loxo góor gu ñëw lëng mu mu d'accord ak moom ku mel noonu kay mën naa dugg ci njaaloo moo tax mën na ko fase ko mu ne ko ah yow mu yàlla yoon dëgg-dëgg nag mënu ma koo muñ moom ne waaj waaj Cham la sant mu ne ko daal dëgg-dëgg mu yàlla yoon kii daal mënu ma koo muñ nga ne ko ah kon téye ko bokk yaa ngi dégg kon téye ko bokk loolee kon da ngay gis ne ci wàllu googee la bokk waaye day wane ne tamit soxna boo ko yoree nga jéem koo jubbanti muy def bàkkaar yu fis nga def te ba sonn mënoo ci dara la gënoon mooy nga fase ko amma nag boo jàppee ne su ma ko fasee ba pare it mën na maa fitnaan ba ma dugg ci ak njaaxum loola it musiba la te it dañ koy gis ay góor yu fase seen soxna ba pare wëlbatiku di njaaloog moom wal iyaas billah mi ngi noonu ci daganoon na la daganoon na la ba pare nga wëlbatiku di njaaloo ak moom ak bari ci suñu jamonoy tey mi ngi noonu muy fàttali benn góor bu daan jullee suñ jàkka ji mu ne ma imaam moom soxna bi dafa taaru taar bi nag daal di koy jay mu créer mu problème créer mu problème ba ma fase ko mu yaakaar ne xëy na dana am jëkkër toog na lu yàgg amul jëkkër fu ne mu jaar pour bëgg a dellu si ma bañ nee na bis la ma woolu di ma wax ci problème xale yi nee na ma ñëw rek mu tëj bunt yi futteeku ma ne ko man man ma gis yàpp bu dagan ma bàyyi ko ma ñëw di lekk médd du ma def loolu yaa ngi dégg yaa ngi dégg loolu mbokk da ngay gis ne dana am ci góor am ci jigéen yow yaa ngi nekkoon ci sëy bu dagan nga caaxaan ba génn ci sëy bi bëgg ko jaaral ci loo xaraam mi nga noonu kon it loolu kon boo ko ragalee ci sa bopp ah su boobaa moom nga téye soxna si amma bu dee xadis bi ci tegee muy xadis abi hurayra bi radiyallahu anhu annahu samia rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul moom da daa dégg yonent yàlla bi di wax ni xiina nazalat ayatul mutalaa'inayni bi mu wàccee bi yàlla wàccee aaya bay wax ci ñuy rëbbante mu daa dina nag ayyuma imra'atin adxalat ala qawmin bépp jigéen bu dugal ci benn famille man laysa minhum koo xam ne bokkul ca ñoom fa laysat min allahi fi cheyin kooku day nekkatul ci yàlla ci dara walan yudxilaha allahu ljanna jannatahu yàlla du ko dugal mukk ajjanam ja waaye ayuma rajulin bépp góor jahada waladahu wa huwa yanzuru ilayhi koo xam ne dafa rejeté dàq ab doomam ci mi ngi koy xool ba pare mu bañ ko reconnaître ku mel noonu de ixtajaba allahu anhu yàlla subhanahu wa taala dana doon koo xam ni kuy def baaraag digganteem ak moom yowmal qiyaama wa faddahahu cay faddahahu ca it dana ko toroxal ala ruusil awalina wal axirin ci kaw boppi ña jiitu woon aadama ak ña ca topp ak ñi mujjoon ñëpp axrajahu abu daawud wa nasaa'i wa ibnu maaja wa saxahu ibnu xibbaan kon mbokku xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon wax ak jigéen ñi na leen ay déen jigéen ñi képp koo xam ne fexe na ba dugal ci benn famille koo xam ni bokkul ca ñoom te it loolu lu yombu jigéen la mbokk doomu aadama kenn mënu ko sàmm am déet kenn mënu ko sàmm doomu aadama ndax fa doom di cosaanoo léeg-léeg cinq minutes sax doy na ci kon képp koo xam ne fexe na ba dugal ak njaaloo doy mi njaaloo ci famille ci famille ku mel noonu day séqatul ak yàlla dara ay nekkatul waaye yàlla cay du tabbi aljanna moom la yonent bi al islam yàlla santoon ko buy jaayanteeg jigéen ñi mu jaayanteeg ñoom ci loolu wala yaatiina bi buhtaanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihin bu ñu indi mukk loo xam ne dañ koy duural mu jóge ci seen loxo yi ak seen tànk ya naam te loolu mooy njaaloo googu loolu la wax góor ñi waaye mu jigéen ñi waaye moo ne góor ñi yépp góor boo xam ne rejeté na doomam ba pare di ko jàkkaarloog moom ba pare mu rejeté ko ku mel noonu day allaxira yàlla dana ko yëkkati ci kanamu mboolem ña fa teewoon ci nit ak jinne ak malaaka daal di koy toroxal te kii day la yàlla wërsëgaloon doom ba pare mu rejeté doom boobee loolee kon mi ngi noonu looloo tax ba góor am na droit rejeté ëmb soxnaam su ne am na ci preuve waa joo xam ne nii wóoru na ko ni bi mu gëjee ànd ak soxnaam gis na baax mu jóge fi dem tukki gannaaw ba soxna si ëmb gannaawam wala waa joo xam ne yàgg na ci tukki mu ngi noonu lu mat ay at mu ñëw soxna si ëmb gannaawam loolu waa joo xam ne yàlla nattoo na ko tële na mënul ànd ak soxnaam ba pare soxna si xëy ëmb ilaaxiri ala kulli xaal bépp ëmb bu la leer ne kii moom juruma ko am nga droit dem ca attekat bi ne kii moom juruma ko waaye képp koo xamee ni nii yàgg sa soxna yéen a ngi ànd normal ay njoor teg sikki sakk rek du tax mukk mu am doom nga ne ko doom bii juruma ko ak doom ba nu mën a mel looli ku ne war caa bàyyi xel ci xadis yi nga xam ne moom la ñu nar a jàng di tëje moo koy gën a leeral incha allah
وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه خرجه البيهقي وهو حسن مرفوع وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود قال هل لك من ابل قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال هل هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى ذلك قال لعله نزعه علم قال فلعل ابنك هذا نزعه علم متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه
kon mbokk sunu bind yu mujj cheikh incha allah suñu borom mu ni hop subhanallah naam yonent yàlla bi ay waxam moo waxi borom bi benn la waaye ñu ne omar ibnul xataab wan omar radiallahu anhu qaal man aqarra bi waladihi koo xam ne saxal na ci doomam reconnaître ko tarfatu aynin ci xefe xippi fa laysa lahu an yanfiya an yan fiihi du daganati mu wëlbatiku di ka daqaat axrajahu lbayhaqi wa huwa xasanul mawquuf kon xadis bi moom day wax rek ne ki nangu ne soxna si doom bii day mu ëmb sama doom la amatoo droit nag wëlbatiku waat naan xale bi moom juruma ko ca loolee la koy mën a jur mooy xadis bi ci gannaaw bi abi hurayra anna rajulan qaal benn góor dafa ñëw mu ne yaa rasulullah inna mraati waladat gulaaman aswad sama soxna dama jural doom ju ñuul qaala hal laka min ibil yonent bi ne ko ndax am nga ay gëléem qaala naam qaala fa maa lawnuha mu ne ko lay lan mooy kulluuru say gëléem qaalu xumru qaalu xumru xumru mooy xonq samay gileem gileem yu xonq lañu qaala hal fiha min waraq min awraq ndax am na ca lu mel ne xaalis piir mooy lu nekk diggante weex ak ñuul qaala naam qaala fa anna dalik mu ne ko loolu nu mu mën a nekke loolu fu mu jóge qaala laallahu nazaahu irq mu ne mën naam da koo xëcc benn sidiit ci sidiiti ay maamam qaala fa laalla ibnaka haada mu ne mën na sa doom bi nazaahu irq da koo xëcc benn te la nga xam ne mooy siditi ay maamam ca mbakku kii kaa bi ka dal mooy daa ñëw moom dafa xees ay naar la jabaram naar la doom ji juddu doon ku ñuul mi ngi noonu mag ñi daan déglu musique yaakaar naa ivoirien la mi ngi ko doon way naan ma femme là je suis noir elle est noire elle est ma porte na femme blanche yaa ngi dégg ala kulli xaal mu ne man dafa xees man ma mu xees ñu weex ñun ñaar muy di doom bu ñuul rasul sallallahu alayhi wasallam ci pédagogie bi ko yàlla mayoon ci jàngale mu ne ko ah di yow am nga ay giléem day mu ne ko waaw mu ne ko waaw giléem yi giléem yi lan la mu ne ko giléem yu xonq lañu mu ne ko waaw ndax du ñu jur giléem boo xam ne moom dafa mel ne xaalis piir ay mooy diggante weex ak ñuul mu ne ko axe kay mu ne ko waa giléem yu xonq nu ñu mën a juri giléem bi mel noonu mu ne am mën nam ci maami giléemam am na giléem bu ca ñuuloon ca la ko jële mu ne ko sa doom biit mën nam ci ay maamam am na ku mu jële ñuulaay bi téyel sa doom yaa ngi dégg doonte di ne loolu kon mbokk lu mën a am la mooy doomu aadama da ngay gis ñaar ñu ñuul mais fekk kenn ci ñoom seen waajur dafa xees ñu am doom doom bi jël maamam mën nga jël sa maamu bàyyi jël sa maamu maamu maam ca loolu day am waaye itamit dañ ciy dégg ne la yonent bi alayhi salaam ne wa anna lil irq dasaas mooy sidit day ñoddante looloo tax mu naan bu ngeen dee takk sëy seet leen famille bu baax ngeen takk ca ndax sidit day ñoddante léeg-léeg ndaw si baax na am am doom waaye maamam doon ko bon doom ya ngay am ca moom am ca ñoo xam ne seen jukko yi maam lañ jëli loolu moo tax ba wàllu sëy soo mënoon xool famille boo xam ne ñu rafet jukko lañ nga takk ca loolu da ngay gis ne mooy la la gën booy may su doom it naka noonu lu tax mooy sët dana jëli jukkoy maam comme ni muy jëlee deru maam ni nga noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ca loolee amma ni ko muslim solo nee na moom dafa ñëwoon rek pour rejeter ko dafa ñëwoon rek pour rejeter ko am na benn mbokk bu ma ci nettali histoire bu doy waar koo xam ne nii soxna bu ñëwoon fii Dakar di liggéey yàlla dogal mu daal di ëmb bi mu ëmbee daal di am doom doom ji weex tàll bi doom ji weexee tàll jëkkër ji na ko ha ca naaru libaane yi nga defoon di njaaloo ba indil ma doomi naar daal di koy rejeté ndekete xale bi puune la yaa ngi dégg ndekete xale bi xale bi doomi puune la yaa ngi dégg su ko defee kon daal comme niñ leen koy waxee moo di ne rejeté doom lu rëy la doomu aadama bi tant que amoo ci ay yenn yaqin yi sa doom sa soxna tànk yaa nga ànd ak moom doom jëm indi nu mu mën a mel jàppal ne rek sa doom la mooy nangu sa doom ca du sa doom moo gën a yomb nga rejeter sa doom fekk sa doom la loolu mi ngi noonu mbokk julit mooy bind bi ñu waroon a jël tey yal na yàlla sàmmal ñu suñuy sëy ak suñu sëy njaboot lépp loo xam ne di indi gàllankoor yal na yàlla fegal ñu ko te may ñu jàmmi àdduna ak jàmmi alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw bokk na laaj bi mbokk bi di laaj mooy soxna bi mu ne dafa am ku koy bëgg si ndax am na droit won ko lenn ci ay cëram ala kulli xaal bokk na ci borom xam-xam yi juuyoo bu ñu am ci foofu ñoom ñépp dëppoo nañu ne dagan na mu gis kanamam ak fi ñuy takk montre jëm suuf loolu boo gis gisee ma koy wax mooy la waa Arabie Saoudite di def xam nga Arabie Saoudite moom ak borom xam-xam yi topp seen mazhab ñoom dañuy jigéen dara warul feeñ ci moom amaa nag ki ñëw bëgg ko takk am na droit génne kanamam génne ay loxo mu gis am na ci it ñoo xam ne dañuy ne bu dee dogg na ci ne da koo bëgg a takk li frère am am droit gis am na droit gis ko ci moom ci kanamu frère am wala baayam mooy mu dindi muuraayam mu gis baatam gis kaw dënnam nii gis ay loxoom ci gannaaw concali gis ay yeelam yooyu nga xam ne baayam ak frère am am nañ droit gis ko ki dogg ci takk ko am na droit gis loolee bu ko defee ci kanamu ay mbokkam njëree la yonent bi sam doon wax kenn ci yéen su dee bëgg a takk su ma nee xool lañ koy woo takk ko na ko xool loolee da ngay gis ne mooy wax ji ci gën a diggu doomu ñu ngi noonu amaa nag yenn xale yi nga xam ne dañuy bëgg a topp buntu fiq liñ lay seedeel muy fiq bu dee da ngaa gis ne yombal gu am rek nga jàpp ko walaay da ngay alku ni ko borom xam-xam yi waxee am na lu ñuy tuddee mazhabu zahiriya ñoom lu ñuy wax mooy dañu naan maadaama yeneen ci bi nee na nga xool ko kon am nga droit xool lépp mi ngi noonu ba mas naa ci dégg docteur Mouhamed Lo hafizahullah di wax ne benn xale bu jigéen dafa ñëw nee na benn xale bu góor moo ñëw na ko dama laa bëgg a gis nee na futti ma ma def yaramu neen mu xool ma gauche xool ma droite na yow daal doy ma pour soxna dem yoonam yaa ngi dégg waaye mbokk xam ngeen loolu islam ak xel mu xel mu rafet sax nanguwut loolu kon daal loolu du lislaam da nga xamee ni daal la ci gën a digg doomu la ci gën a digg doomu mooy soo demee ba dogg ba dara desul lu dul takk ko am nga droit gis la frère am di gis waaye fekk ci kanamu frère am la wala baayam wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal naam bu dee ne kon incha allah ñu doy loolu laaj boobu ñu doy loolu laaj boobu ba yàlla dajale waat ñi fi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain